ومسكني صلي من الفجار وامن العالي بما من جاري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki taalibe yi yéen dëkkandoo yi di leen di leen sant di leen fàttali mu jëm ci suñu dëkk bi tedd bi ci Tuubaa muy mu dolli ko warmaal dolli ko sàmm ci lépp lépp lu fi yellut ndax borom dëkk bi su ngeen gisee bi ñu koy sëñ mu ne sefeet bàyyi bi warab yu tudd yëpp dikk ba ci digg Manding mu leen wóor ne dara nekku fi woon lu dul ab xàll i rab leneen nekku mu fàkk ko ba mu set def fi dëkk bu sell bii tuddee ko turam bu sell bii bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak kon lépp luy yàq jikko ak melo moo ko waraloon kon maa ngi leen dëkk bii ma warmaal ko sàmm ko bu fi kenn def luy niru po bu fi kenn def luy niru mooy yàlla waxoon naa leen fi ne bu fi kenn naan bu fi kenn dorog bu fi kenn tëgg tama bu fi kenn sabar bu fi kenn fecc bu fi kenn kar képp koo xam nañ ne yii la wax muy xeeti mooy yàlla ak xeeti po yaa ngi ko fiy defati booy waraani ci fa saasa la ñuy defante yow teg nañu ci suma bakkan képp ku ko fi defati daal ne la wóor ne musiba ma lay dal du doon moom baati moom saa yu lay doon te ne la wóor ne jëm lëfa ngoogu nag loo xam ne lu dëggu si man la loo xam ne bëgg naa mu wóor leen ne tere gii ma koy tere tere inu teraanga laa ko tere tere inu sutura laa leen ko tere ku loolu soxalut nag ma nga fi def ku mu doon nag ci àddina ay def booyee ko muy bu dee tey li fi juddoo dana judd tey du jokk loolu rek laa leen bëgg a xamal dafa di daal lu bokk li nga xam ne borom dëkk bi bëgg ko fi defati la mu ngi jël waatal naa la ci yàlla ne du jokk fasaa dina jub képp koo xam ne dinañ ne jot li jii ma la koy jot ni jot ko ci ba noppi te defe ne war ngaa mën a def leneen nag ku mu mën a bu boobaa da nga xam ne sàmm ma fi bàyyi wattoo ma fi bàyyi ay yooyu la in uridu ila l islah ma statatu wa ma tawfiqi ila billahi tawakkaltu ilayhi sëriñ bi nee na ma ngi ñaan kon mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp taxawaayu sëriñ Modou Lo ci taxaw lépp lu bon mu bëgg koo seetal ci dëkk bi taxawaayam boobu kenn ku nekk ci ñun na na ci sant te am yéene ànd kook sëñ Modou di jox ko suñuy xel ñu jox ko suñuy xel ak sunuy bët ak suñuy taxawaay nekk ci wetam lépp ci wetam ànd koog moom ci liggéeyub Serigne Touba bu rëy bii Serigne bi nee na lii kët moom mënta ñàkk waaye nag lu jafe la nag kon ñun ñëpp sëriñ bi nee na nañ jàppale sëñ Modou ndax benn liggéey bi rek la muy liggéeyal sëñ Tuubaa te nee na njëriñul ñëpp la njëriñul lu baax ñépp la nee na noonu rek la demee sëriñ bi nee na ko ñëpp déggee ñi dëkk ci dëkk bi ku dëkk ci dëkk bi ak ak ku aju ci dëkk bi foo man di nekk sa yittee na nga ko def ci liggéeyub sëriñ Modou Lo bii te ànd ceeg moom la cay càkkam kàttan ba dëkk bi li ci borom bëgg moom dara mënu koo téyam waaye nag li nga ci war ñun ñu def ko te ànd koog sëñ Modou Lo mii sunu kem kàttan jërë ngeen jëf wa maskani salli min al fujjaari wa mun malaali bi ma injaari